الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وكل من والاه سمعنا وأطعنا واعتصموا بعبد الله جميعا ولا تفرقوا واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النظير حسبنا الله ونعم الوكيل حولك يا معين وبك نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي الحسيم asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu assamadiya ci njiita Seex Abdu Samadi Seex fan bi Seex Ahmadul Xadim ñu ngi nuyoo nuyoo bi di salaamullah jàmm yàlla muccug yàlla gu musal ay jaamam ak rahmatullah yërmaande yàlla di xéewalug yàlla gu muy ay jaamam ak barakatullah barke yàlla di yërmaandeem di xéewal yu muy dolli ay jaamam yàlla na ko boole saa bu nekk ni ko Cheikh Abdoul Ahad Mbacké doon ñaane rahmatullahi alayhim di ndokkeel ak masawu kilifa yi di ñaan borom bi doole sàmm doole dëral ak Cheikh Mouhamadinil Muntaqa ak mboolem kilifa yi lislaam ak seen njaboot di ñëw ci suñu bindu bi di bindu juróom-ñeenteel ci téereb Sëriñ Tuubaa di naju qadaa il xaaj mu bind ko ci arab di ci jàngal wàllu teggiin melokaan yu rafet ji diggante jaam ñi rawatina. di xaaj bi ñaareel kon ci lislaam ñu teg ko itam ci wolof ni ko sunu sëriñ sa tekkee bisimilah bak suñ tuba sëriñ tuba ne omi kon wax ji tey dafa jëm ci lu wàllu aju ci lu jëm ci wàllu laabire mbokkum jullit laabire mbokkum taalube ci lu koy jariñ bu ko defee ci lu muy mucc ci lor ji bu ko bàyyee wa min al adabi nasihatu li kulli ahadin mimma tara fihi rusdahu wa allah tara li nafsika ala ahadin haqqan wa lasta li shay'in min at-ta'zimi kama ashara ilayhi bi qawlihi tey sëriñ bi daa njëkk a wax wi sari door dikk ci way wi sëriñ Tuubaa min adab bokk na ci teggiin jikko bu rafet melakaan wu rafet an nasihatu laa li kulli ahadin ñel képp kenn mimma ci loo xam ne taraa da nga gis fii ci moom rus rusdahu ak njubam ak defaru mbiram maslaam manfaatu njariñam wa allah tara anga bañ a gis li nafsika ñee sa bopp ala ahadin war kenn xaqan xaq wa annaka ak naka yow lasta did yow mustaxiqan nga aj yeyoo li sa iña dara min na ci ak màggal ak yëkkati kama asara ni ko mu junje ilay jëm ci lii ñu wax nii ci wisar wi bi xawli ci waxam ji nii ci way wi Sëriñ bokk na ci teggiin euh, melakaan wu rafet jikko ju rafet ni ko bi sallallahu taala alayhi wa sallam jàngale ci sunnaam ci hadisam muy ak laabire yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam ne an nasiha lillahi wa li kitaabihi wa li rasulihi wa li aimati muslimina wa xaamatihim Sëriñ Tubaa nee na bokk na ci teggin laa biir ñil képp kenn koo xam ne gis nga ko nga wax ko loo xam ne bu ko defee dana jariñu wala boog nga wax ko loo xam ne su ko bàyyee muy ak tere dana mucc caloor lor ja kenn ku nekk loolu giin la muy laabire mbokkam julitam mbokkam mu mu bokkal mbokkal mu mu jaxasool mu mu dëkkal mu mu euh, bokkal di liggéey mu laabire ka ci loo xam si ne bu ko defee dana jariñu ci loo xam si ne itam bu ko bàyyee dana mucc ca lor ja Sëriñ Tuubaa ne bokk na ci tegginam ñun taalibe yi kenn ku nekk ci ñun bañ gis na kenn ameel na ko xàqi ak fonke la ku yëkkati mel ni bind bi ci topp jumla bi ci topp moo ko leeralaat bokk na ci teggiin kenn ci ñun taalibe ba bay jàpp ne keneen war nañoo jekk di e, màggale ko yëkkati mu way ko ne farxam saqiran laa takun mu daxira xanhu la yaadam min nasihatin tora fiha lahu rafdan wa waxiril kabir walaw raaytahu daifan wa xaqir wa min ta'addubika allaa tantura haqqan li nafsika alaa shaxsin tura wa an tara annaka lasta mustahiq shay'an min at-ta'zimi mimman qad yamiq bal i'tabir min nafsika al-aadaaba wala tutaaliban bihi al-ashaaba nga wa kun ma'a an-naasi jami'an dahraka kama tuhibbu an yakunu ma'aka nga xam ne li mu waxoon ci sari la bantuwaat far xam na nga yërëm saxiira ndaw ndaw ci yow koo tane nga xam ne yaa ko féete ci at lañ ko miine waaye yaa ko féete mag itam ci war koo laabire ci xam ci ràññee mu wéy laa takun nekk mu daxiren di aji denc xanu walis ko la yaa dara min ci laabire boo xam da nga gis fiyaa ci moom laabire ga rus dan njub mbir njariñ laxoo ñeel ko wa waxit te nga fonk te nga wekk ci at lañ ci miin ak képp ku la mat itam ci lislaam ci ak mbaax ci jikko ju rafet walaw raayt ak donte gis nga ko baax daifan mu aji doyet di wa xaqirante aji xeebu ci saaxir sëriñ bi ne képp ku ñu féete ndaw ci at mbaa ku ñu féete ndaw itam ci kenn ku nekk lu mu tane moroom ja taalibe bu nekk lu mu tane moroom ja bokk na ci teggin mu di ko laabiire mu di ko laabiire laabiire mooy wax yu am njariñ joo xam na day làmboo ndigal ak tere wala benn ci yaar yooyu su jëmm ja dafay jariñu su bàyyee tere gi mucca lor ja bokk na ci teggin mu fonk mag jox ko ciru mag xormaal ko wekk ci zahir dafay nuru ku ñàkk itam du tee rek naka jox ciru mag bu mu xool jëmmi saxiru euh, mag moomu wamin ta bokk na ci sa teggiinu ba tey sëriñ Tuubaa bokk na ci suñuy teggiinu li ñu waxoon la ñu bamtuwaat ñu bañ a jàpp na kenn ameel nañu xaqi dekki dinu yëkkati ak a màggal bokk na ci suñu teggiin daal ñu jàpp ne ñun yéyewunu ak màggal ci kenn ku ñuy sopp yéyewun ci ak màggal ci moom loolu mooy teggiinu jëmm ji su ko defee kenn ku nekk itam la ci moom rek mu def ko kawre du tee ka war a sopp ka màggal itam lañ ko sant mooy euh, sopp ka màggal waaye ki nga ko war a defal ngir sàmmoonteeg teggin moom bu mu sax xool loolu na jàpp ne yéewul ci kenn ak màggale ku yëkkati bi nee nañu jàpp ne daal ñun suñu bopp daal teggin yi ñun ñoo ko nañ koo xam war nañ koo def bu ko suñuy moroom defee ak bu ko deful yépp bu ñu xool loola buñ jàpp ne suñuy moroom ci boppam ñoo war a sàmmoonteeg ci ñun ay tegiin waaye nañ jàpp ne ñun dañoom war nañoo sàmm teggin ci suñu bopp njëkk ku ko sàmm ku ko sëmm suñu moroomee sàmm ko ak ñu ñàkk koo sàmm ñun nañu fexe ba nañu am melokaani teggin yii mu jàngale mu daane la ko boog nañu nekk ànd ak nit ñëpp ba faaw di feeg ñee ngi dund ci bëggal leen aw yiw tey dox jëm ca luñ koy amee bañal leen lor tey mooy suñu ko itam nu mu leen di dale ni nga xam si noonu la ñu bëggale suñu bopp aw yiw tey dox jëm ca ni nga xam ne noonu lañu ñu bañal suñu bopp safaan ba aw lor tey moytandiku ko sëriñ bi teg ci mel ni ku saraa ñaari bay du mujj yi nga xam ne moom bokkutoon ca wisar wala ca max naam wisar wala mooy euh, li wax ne euh, banix tabib nafsikal aadaba wala tutaalin bihi asxaaba kon loolu dafa beru moom la saraane yaani dana jublu moom sëriñ bi anna min xusni al adabi an taxtawira maa huwa al adab bi nafsika wala tutaaliba bi gayraka wa an takuna maa jamih naasi kama tuhib an yakuna maaka dana jublu anna min xusni al adabi naka bokk na ci rafetu teggiin an taxtawira ngay xalam maa la nga xam ne xoo moom al adabu mooy teggiin min nafsika sa bopp wala tutaalitu doo sàkk bii ci moom gayraka ku dul yow wa an takun nga nekk maa jamihi naasi ànd ak mboolem nit ñi kama tuhibu ni ngay soppe ni ngay bëgg ay yakunu ñu nekkee ko maaka ànd ak yow ne bokk na ci suñu rafetuk teggiin ñu njëkk a xam la nga xam ne si ne mooy teggiin te fexe itam jàpp na ñun ñoo war a melawoo teggiin yooya daal di koy melawoo bu ñu xool suñuy maas bu ñu xool keneen ndax ñoom sàmmonte nañu ak tegin ya su ko defee ñu roy ñu ànd ak ñoom sàmmonte teggiin ya wala di xool naa ko ñooñu sëmuñu teggiin kon ñu nit bu ñu sàmm teggiin ñun kay li nga xam si ne moon war mooy xam li teggi nii te mela ko moo xam keneen ku du ñun sàmm na ko wala sàmm ko nañu ko def ngir yàlla nañu nekk ànd ak nit ñëpp kem nit ñu bëgge ñu nekk kook ñun nañu nekk ànd ak nit ñi kem ni nga xam ne noonu lañu bëggee nit ñi nekk ko ànd ak ñun te loola mooy rek di leen yéene aw yiw tey dox jëm ca lu leen koy may di leen bañal aw ay tey moytu ko mu dal leen muy wax ci lii ba tey indi wax waykat wax jëm ci wàllu googu waraaxi xaqa dil jalaali alqaadiri fihim li wajhihi ka qawli saaxiri waraaxi na nga sàmmonteeg xaqa dil jalaali xaqi borom màgg gi muy sunu borom yàlla mi bind mi ndeefi alqaadiri ki aji ame kattan ci ñoom euh, mi ndeefi li wajhihi ngir jëmmam jëmmam yàlla ka qawli saaxiri ni ko wax waxi waykat ba nee ci kanam bi nee na nañu sàmmonteeg xaqi sunu borom subhanahu wa ci jaamam yi ci mbindeefam yi te yàlla rek tax te yàlla rek tax nga xam ne bu ñu ci xool yàlla rek daaju koy man di def saa bu nekk te duñ ci yokkat duñ ci tàyyeel ndax yàlla rek mooy tax te yàllaa ngi fi te du fi jóg mukk ngir wut ci ngërëmam li nga xam ne moo féete kaw lépp daw ci meram mi gën a itam euh, euh, euh, tar diis lépp wala yaatu billah teg ne yaani dana jublu yaani anna min xusnal adab naka boo ko def teggin an turaax ngay sàmmoon teeg fil xalq ci mbindeef xàq xaaliqi xàq aji seen jalla màgg na waxalaa tam kawe bi an takkoon ci ngay nekk maam ànd ak ko wax ay ba mu saraa bind wii wax léegi ci waraay xàq dil jalaali bokk ci rafet tegg it ni sàmmoon teeg ci mbindeef yi xaq yàlla mi nga xam si ne moo leen bind tey doxal seen mbir yàlla mu kawem te màgg ci lépp loo xam si ne ak manqué la sori na ko jomm ko ci nekk ànd ak ñoom ni ko waykat waxe ci daaj bi ñu wax baxarul basitu mi ngi nii irham uqay jamihal xalqi kulli himu wanzur ilayhim bi ayni lutfi wa safaqa waqir kabirahum warham saxirahum waraahi fi kulli xalqin xaqa man xalaqa irham na nga yërëm uqay yow sama mbokk jamihal xalqi mboolem mbindeef yi kulli himu képp ci ñoom mbindeef yi wanzur te nga xool ilayhim dem ci ñoom mbindeef yi bi ayni lutfi ci batum ñeewant wa safaqa ak yërmande ak ñeewant mu yërmaande ba tey yépp akuk woyefal akuk ndànkal waxiir na nga fonk kabirahumoo seen mag warxam te nga yërëm saxiirahumoo seen ndaw waraaxi te nga sàmmoonteeg fi kulli xalkan ci mépp mi léef xaq man ak yàlla mi nga xam ne xalaqa bind na ko nee na waykat ba dafa wax ne yow sama mbok mboolem mbindeef yi ñëpp ñëpp yi am xel ak yi amut xel ba ci mala gi mala yi xar yeeg bëy ki leen di sàmm fas yi ak mbaam yi ki leen yor di leen jëfandikoo ne leen yërëm nay xool ci ñoom bëtub yërmande kenn ku nekk lay ak xam muy góorgóorlu ci joxe ko rawat na nit ki noonu mbindeef yi nga xam ne ñoo ànd ak xel ci doomu aadama yi ki yilif ay mbindeef ni ki waajur yi ndey ak baay ak kilifa yi ak ñi yilifa ñépp ku ñu yilif rek nañu xool ci ñoom bëtub yërmande xool leen bëtub ñëwant mboolem ñi yilife ñëpp waajur yi ak ña leen tey wuutu sëriñ si ñëpp rek nañu xool ci ñoom bëtub ñëwant ak yërmande liggéeykat yeeg ña ñu yilif ñëpp di leen jàngal xeetu xam-xam bu mën a doon xam-xam bu am njariñ ci wàlluk diine ci wàlluk àdduna nañ xool ci ñoom bëtub ñëwant ak yërmande te def leen ndànk waxi kabira xumoo na ngeen fonk ñi leen féet mag jox leen xorma ak respect na ngeen fi yërëm ñi leen féet ndaw ñi leen féete ak mag ak daraja buñ mën a amee donte yéen leen yëg ëpp daraja na ngeen leen fonk ormal leen ak daraja boo mën a amee ci seen kanam ñi leen féet ndaw itam ak daraja boo mën a amee ci seen kanam na leen yërëm na leen ñeewant na nga jëflante ak ñoom ci ak ndànkal ak woyafal jox kenn ku nekk lay xàqam moom la wax ne waraaxi fi kulli xalqin na nga sàmmonte képp mépp mindeef waraaxi na nga sàmmonte fi kulli xalqin mépp mindeef xàq man xàq yàlla mi nga xam ne xalaqa bind na ko mindeef mu ci nekk na nga sàmm ci moom xàq borom taala mi ko bind seet ci moom xàq yàlla set ci moom xàq yàlla la dox sa diggante ak moom nga taxaw tem ci joxe ko sa bokkum dëkkandoo ci sa biir kër ci sa koñ ci sam réew kenn ku nekk lay xàqam loo ci nekk ci sa loxo nga fexe ba mu jot ca mu teg ci hadis yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam ne wa fi lxadis laa tazaalu ummati bi xayri ma daama zaxiruha yuwaqiru kabiraha wa kabiruha yarxamu zaxiraha kun zahti zaibi xobdal ayimati radiallahu taala anhum fa taxtadiya hadis mi ngi ci wa kabiruha yarxamu saxiraha kun zahti zaibi yarxamu saxiraha léegi nga dégg ci ne kon lim doon wax lépp ci wàllu njëlbeenu téere bi tënkoon teggiin ci ñett ki la féete mag nga fonk ki la ndaw nga yërëm ko sa morom nga def ko ni nga def sa bopp mooy suna si yonent bi loolu la yonent bi jàngale foofu la ko sëriñ bi teg yonent bi nee na laa tasaalu dañ ummati sama xeet wi foofu nekk na hadis ba laa tasaalu dañ ummati sama xeet mboolem ñi ko gëm ci jamonoom ba ci ka mujj gëm du ñu dañ ummati sama xeet bi xayri nekk ci aw yiwu laat tasaalu dañ ummat sama xeet bi xëy di nekk ci aw yiw bi xayrin maa daal fik sax na saxiruhaa ndawam yu waxidu fonk kabirhaa magam wa kabiruhaa tamagam yar xam di yëram saxirhaa ndawam li feek ñi féet ndaw ci xeet yi ñi ngi fonk mag ñi ñi mag ci xeet ndaw ñi ci aw yiw ci jàmm ci dund ci aw yiw ci jàmm dund gu teey la ñuy nekk kon li ci wàlluk ay at ñi féet ak mag ci wàlluk yore daraja yi yore mbir yi di doxal ñi ngi maanaam euh, yërëm ñu féeteeg ndaw ñi féeteeg ndaw itam ñoom ci wàllug ay at ñi féeteeg ndaw ci wàllug ay daraja ñoom it di fonk ñi leen féeteeg mag di fekk loola ngi am rek jàmm rek aw yu rek mooy am yonent bi nee na sallallahu taala alayhi wa sallam ku nekkal kon sax di daa di boroomu roy di boroomu toppandoo di boroomu roy bi xoddal aimati ci jubu kilifa yu baax ya te muy alquran ak sunna radi yàlla na gërëm allah yàlla taxalaa kawe na xam walis ñoom xam hum walis ñoom fa taata a yekkoon da nga jum na nga roy sëriñ bi nee na kon nañu roy ñun taalibe yi jub gi nga xam ne si moom la fi kilifa yu baax yi bàyyi woon dala ci yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam ak ña wutu woon di ay imam di ay njiit sayidna aboubacar sayidna omar sayidna ousmane sayidna ali ba ci sunu kilifa yu baax yi yàlla boole nu ci sunu réew mi ci sénégal kenn ku nekk ak kilifa mu féetewoo Eh, sëriñ Touba jàngale ne nañu roy seen yoon woowu yoon wu jub di wenn yoon wi muy al ju ma sëkk yàlla na yàlla doole leen a gërëm ñoom ñëpp nee na ku def loolu rek da nga amee jub gu ma sëkk jub gi yàlla santaane ci alquran ak sunna yàlla na yàlla doole gërëm sëriñ yëpp tabaarakallah jërëjëf sëriñ bi ci taxawaay bi Abdou Samad ak mboolem sëriñ si ci seen taxawaay yàlla na yàlla fi nu dégg ak topp wa salli yam ala nabi wax sallimi waqti bihi haajati kulli muslim